ñu ngi teew tey ànd ak suñu ay militants yoo xam ne ñooy militants defar sa gox ñu ngi teew tey ànd ak ay responsable yoo xam ni ay mandataires lañu war nañu nekk ay tête wala ñu nekk futur maire dans leur commune dans la coalition Defar sa gox te dañu teew pour xamal leen pour leeral leen leen bi nga xam ni suñu coalition bi ngi dund depuis bañ ko créé le premier octobre depuis ba nga xamee ni pouvoir bi ñoom yëg nañ ni que ñun teew nañu en moins d'un mois dans plusieurs dans presque plus de quatre cent quatre-vingt-dix communes loolu daf leen jaaxal daf leen tiital ba mujj gi ñoom ñuy wax préfet yi naan leen bu leen jël liste defar sa gox te préfet yi naan ah ñun de dañ ñoo wax dañ ñoo jox instruction loolu lu ñaaw la ci sama yoon ñoom ba ñu yëgee loolu dañoo jël surtout le président Macky ak ay nitam di woo suñu ay mandataire di leen jox xaalis di leen dikk xaalis pour ñu bàyyi li may wax preuve à l'appui lu ma wër la woo nañ ñu bëri lu ma trois cent personnes woo nañ leen preuve à l'appui laay wax na ñii jox nañ leen dix millions ñii jox nañ leen sept millions ñii dañu jox poste ñi ñu dig am na ñoo xam ni sax ba président di tukki France keroog dafa ànd ak ñoom comme ba nag président la yàlla may na ko doole comme lu mu waxee keroog il a les moyens il a le pouvoir xaw na si jël ñu bëri waaye am na ñoo xam ne ay góor am na ñoo xam ne ñu ngi fii toog wala nekkuñu fi woon nañ leen digal alal yu bëri ñu ni ñoom du ñu Sénégal nag dañuy foog ni Djibril Ngom bëriwuñ fi mais bëri nañ fi ñoom am nañu chance ba day nekk ay Djibril Ngom suñu suñu coalition waaye ñëpp duñu ay Djibril Ngom am na ñoo xam ne seen dignité seen dignité kenn mënu ko jënd te la fi xew lu ñaaw la si dëkk bu mel ne Sénégal lu ñaan dëkk boo xam ne dafa tuuti waaye ay kilifa ñoo fi nekk muy dëkku Mamadou Dia di dëkku Lamine Gueye di dëkku Blaise Diagne di dëkku Léopold Sédar Senghor di dëkku Abdoulaye Wade Abdou Diouf ak même dëkku Macky Sall di dëkk boo xam ne dëkku kilifa Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul Sidi Hadji Malick Limamou Laye Boukounta El Hadj Ibrahima Niass dëkk Yacine Thiandoum dëkk boobu lu rafet moo fi war dox mais lu ñaaw waru fi am ba ñu yàlla mayee ndam ci devant la cour mu jox ñu ndam jox ñu dëgg ci préfet yi nga xam ne dañu annulé woon suñu ay liste ndax naan couleur yi dañoo niroo cour d'appel may ni si ndam ñu foog ne affaire bi jeex na tooguñu rek ministre de l'intérieur ñëwaat am doole ni moom dafay dund si ay couleur ba pare nag ñun dañuy jox ay couleur ñu nag nanguwuñu ay couleur am te bu soobee yàlla du ñu dem élection ay couleur xanaa comme que ñun dañoo am yar ak teggin dañoo xam luy dëgg dañoo xam luy yoon xanaa décision de justice impose ñu ko obligé ñu ko dans ce nañu dem couleur dinañ dem élection bu ñu demee ak feuille blanche sax dañuy gagné bu soobee yàlla boo gisee nanguwuñu ñoom ñu imposé ñu couleur parce que dafa nekku dëgg nekkul yoon ndax ñun suñu couleur jant bi la le soleil suñu couleur rouge bordeaux la suñu symbole mooy alburaax mooy berkelle mooy doomu fas ak mbaam moom moo ñu yóbbu bi def ci daaw ñoom seen couleur marron ak beige ak benn bopp fas boo xam ne kenn xamul fu muy taxaw loo gis mu dëgër dafa am taxaw loo gis mu dëgër dafa pour mu dëgër day am fondement ñun sunu mulet mooy sunu alburax bu am fas bu yóbboon rasulullah sallallahu alayhi wasallam rañaan ak vitesse bu gaaw loolu lañu yor ndax dañu bëgg dox lu leer dañoo jël jant bi ndax dañuy dox lu leer jëm fu leer dañoo jël alburax ndax dañu bëgg lu gaaw ndax affaire bi dafa yéex Sénégal dafa nekk en retard sur beaucoup de choses boo bëggee tabax benn tabax bi da def lu gaaw kon affaire yi wute na comme ñoom bu ñu ñëwee tey couleur yi ba wute am différence ñoom ñu ni. dañ koy dindi ba mu set ñun duñ ci d'accord xanaa rek yoon jox leen dëkk ñu doog a ànd ci décision yoon mais pas ñoom seen bëgg-bëgg te ñoom bu ñuy dëlul suñu couleur bu ñu ko bañee imprimer te fekk yoon waxul dara ñun dinañ jël ñun suñu pexe bopp suñu moyen bopp ñu jël imprimer suñu bulletin de vote teg ko dans dans tout les communes dans tout les centres de vote yi nga xam ni coalition benn defar ko dox teew na dama leen seedeel ni président Macky Sall paralewul suñu liste ñaari at a ngi nii man tooguma ak président Macky Sall te suñu mboroom laay jël témoin alxuraan laay jël comme seede ñaari at mi ngi nii tooguma ak moom boo ko mag moom suñu problème ak président Macky Sall nekkul que ni mu xaalis la wala problème mu marché wala problème mu bien wala problème mu privilège ñun romb nañu loolu ñun séeréer duñu ñaan suñu goro séeréer amul séeréer pur et boo xam ni day tiim gorom di ko laaj di ko tàllal loxo ñun ñooy teral suñu goro mais duñu laaj suñu goro donc suñu problème ak président Macky Sall c'est des problèmes de principe et de conviction ñun d'accord ñu ak nu mu doxalee politiquement ces dernières années nan la doomu aadama mën a expliquer diggante président ak Macky Sall ak Idrissa Seck nan la ko nit mën a expliquer est-ce que yoon ñoo xam ne dañu mel tom ay xaj ak muus te lan moo war a xew ba ñu mën a ànd lu xew si réew mi kenn dégg fi Idrissa Seck te moo nekkoon position opposition te mu waroon jouer lan moo xew est-ce que loolu yoon jàpp nañu kilifa yi bu ñuy wax ak bu ñuy doxee dañu war a doxalee doxalin boo xam ni dafay rafet si nit ñi rafet si bi mu ma nekk leçon pour le futur loolu moom mooy li wér mais suñu diggante ak président Macky Sall amul dara lu ñaaw lu si am te suñu borom laay jël comme seen ñuy seer nag nit ñi incha allahu ñun xam nañu président Macky dafa wér xam nañu gis na ngeen lu muy def mi ngi dugg fu nekk moom dong mu nekk mbëkk def loolu nag day indi fatigue li ñaan fatigue mentale day mën na am li tax président yi soxla premier ministre yan na maanaam ndax mënul def lépp nekk fu nekk nekk fépp en même en même temps suñu borom dong moo ko te moom mënu ko donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp te liy wane ni ni mi ngi commencé am moom bopp buy metti mi ngi commencé am di plané quoi man ma dégg ndax président déglu leen at yu mujj yi weer yu mujj li may wax ñun Sénégal ñëpp a ko déggandoo. ay wax yoo xam ne yanul maanaam ay wax yoo xam ne amul cohérence mu jugee si gémmiñu président Macky Sall mais na ngeen xam ne président Macky Sall mën na sonn ndaxte depuis vingt ans il est au pouvoir bu leen fàtte loolu depuis deux mille il a été directeur général de Petrosen il a été ministre de l'énergie hydraulique et mines président Macky a été ministre des transports xam nga ndax fàtte ngeen loolu ndax bati Joola ba mu ba mu président moo assuré intérim bi président Macky Sall était ministre des sports ndax ba bu leen fàtte ni président Macky Sall moo dàqoon Guy Stéphane bu leen ko fàtte président Macky Sall était ministre de l'intérieur premier ministre puis président de l'Assemblée nationale mu jeex mu dem opposition ñu foog ne noppalu ko en 2009 il a fait le tour du Sénégal il faisait 100 kilomètres par jour di wax nit ñi di dugg ci village yi kooku coono la ba mu ñëw nekk président. bëgg de Sénégal changer Sénégal en même temps record kooku nit day somb il est seul dafa somb